caat yow caat ku ñemee yàlla nga caat sa ñàkk fulla ak sa ñàkk fayda maa ngi koy soog a gëm tey sa ñàkk gëm di maa ngi koy a gëm dama lay soo taxawee ne xamoo Griss Gou ku ñemee yàlla nga te day wax dëgg caat caat sa ñàkk fulla sa ñàkk fayda moo la yóbbu tey fi nga fi nga yegg nii caat sa fooyee sa ndaw ak sa fooyee sa bopp moo la yóbbu fi nga tey caat ba nga ñëw sama oto barki démb foog taxaw dama ñaan xaalis dafa am ñoo mel ma aj samay verre ne la gerte sécurité mën nañu ma seede nga ànd ak ñeenti nit daan sama dara maa commencé tagg ma yàgg la fekk trop di la sagal yàgg la fekk kër Balla Gaye di la sagal tey soo taxee ay nit si booy naar mbër mais ba si booy naar mbër ma ne ma fi nekk di jaxase artistes man dama la ko dëgg ba fi nekk di jaxase artistes su wax ngay jooy di jooy te jooy ngay jooy amul benn njëriñ la dàq jooy ñoo fi nekk yaa toog wax ma tontu la nit da nit da fii nga toog waali may la oto nga dem ba soirée bu ko tëjal naan ko changé ko changé ko changé ko tey soir Pape Diouf te Wally nga doon njëkk a ay jamono fii nga taxaw benn jour soirée Wally yàgg na ngay taxaw ñoo ngay saaga faale wu leen di yàq deri peinture tey di wax xam nga tey soir nga ne Pape Diouf wala nangam da nga yemale artiste soo demee dafay heure da nga xam ne heure mais bu taxaw ne xaw ma Griff man kenn du ma fay man noobul laa avant may def Amérique noobul laa man nekk man nekk Amérique nekk fa noobul am ay employé di leen fay am ay employé di leen fay xam nga la may am Amérique mën na laa jëndal mille huit cent orchestre parce que man fooyoo ma sama live ma ay nit waxuma leen lu dëgg si sama live mais defaral sa avenir Thiat doomu Pikine nga ku mën a way nga xam nga ku mën a way nga macha allah mais gëmal sa bopp soo dee xaw xamoo ma da ngaa ñeme yàlla ña lay yabal ñëpp xoolal man seen seen daanaan laa te xoolal Amérique kenn fa dugg te laa jox buntu bi ana ana gën a ñaata nga ma wane ma gis foog nga ñu Amérique seet si nag. tey magum jëmm nga amee ay njaboot nga soo taxawee naan xaw ma jëriñ suuf loolu su ñu ma yàlla bokk loolu su ñu ma yàlla bokk caat nit da gëm sa bopp gëm li nga doon yow lu nekk war na laa mën a metti si àdduna nga toog mun ko tëxëj lu nekk war na a naqari si àdduna nga mun ko euh, tëxëj nekk su la metti war ko mën a mun mais li ngay def di victime wu pour lan ku la may xaalis wala ku la jox xaalis yow la ñuy jox man kenn du ma fay yow la ñuy jox man da nga war a way dara maa ko may yëkkati xaalis la munoo yàq sama de munoo waxal lu ñaaw soo taxee ne xamoo ma waxoo dëgg ak ña lay yebal dañ lay dugal si pax ña lay yebal dañ lay gas ba nga suul ñu saraxe la man xoolal ndaxaaru mën naa war si yàlla ña doon mayee ñëpp man rek maa fi des di maye ba léegi ca man rek maa fi des di maye ba léegi ña doon mayee ñu bëri daanu nañu Papa Ndiaye géwél mën na ma seede am na ñeen ñu ko mën a seede ba may maye ba léegi maa may daanu ma ndax lu ma ko yóbbee xol bu rafet yow nag loolu loolu wàcc l apostrophe un deux trois nga pour lan bëgg nañu yërëm la Sénégal la ñuy yërëm si juróomi fan mën nga way demal nga liggéey moo ëpp solo li nga def nii di jaxase nit ñi di boole nit ñi nangam nangam xam nga man man su may far su fu may far li ma waale defal Pape Diouf defaluma ko mais suba samay nit lañ waale dafa may fekk ma toog muy yëkkati xaalis bari jox ma ko matul sax 10 jours la ko def te am naa ko mën naa ko mais daan Griff mi sama nit la damay fekk xaalis bari jox ma ko li ma defal Pape Diouf dama ko defal mais teewul man ñoom ñëpp laa yemale yow artiste bi ñëpp la war a yemale bëri na artiste yu bëri yu dund yu métti te kenn kenn du si wax kenn du si ñaan yow fu ñu fekk yaa ngi jéem a def luy boole ay nit non c'est pas normal doomu doomu banlieue nga doomu géejawaay nga doomu a nekk vainqueur doomu Pikine dafa war a nekk vainqueur ñun la nangaloo mosul boole ñee ñu mosuñu boole ah tey gisoo ñoom Sidi Diop wala kenn du ko def mais yow fu ñu fekk ngay jooy di bis ma tey yow xale yi xale yi yëpp yaa ndàq way man man du ma soxoruma de xale yu may ma dàq way mais bul bul ñemee yàlla ba naan xuma gën a sumu ok